album bi euh, génération consciente defuñu ko ay tubab ñoko def parce que dama demoon gëstuwaat outil xam-xam ba ni ma daan woyé sax woyewu ma noonu am lu bari lo xamné ne na ci man di nelaw té musuma ko xam vraiment tubab bi génné nañ ko ci man mais nak ñima ma toogal muy Papis Jules baakan mamaane mamaane heure bu daan wax rek dañuy am idée def lenen mais bobu xawma ban direction la waroon jël donc album bi alias maa koy remercier de passage ndax avant may def projet bi bu gab gisante nañu waxtan nañu sans musique dajé nañu ay yoon mu ne ma jëlal sa temps nga xoolal ma 20 artistes yi nga xam ne si àdduna bi bëgg nga leen te da nga leen di déglu ma jël sama temps xool vingt artistes yoo xam ne dama leen bëgg dama leen doon déglu ma ne ko ñii laay déglu mu jël ñooñu i li ñuy liggéeyee bi ma bi mu paree projet bi nag laa xam ne lii moo taxoon mu may laaj yan artiste laay déglu ndax ñooñu gaam yi ñuy wooyee ci ci noonu maanaam ci noonu la ñu liggéey mbalax laa nam di doomu géwél pire su ma nelawoon ba 6 heures du matin nga yeema malinya lo gayna ko dalje jombi ganta mali gana palo majige biram farba samba sami sapende mbujele wayne tudul won wayne tek way lañ ko daan wowe lol c'est dans mes veines lol dama lol sama trek dret la lol dama ko nam ba pare nak jang ko lim so jamono te ba man ci lolu moy sama base Lolo waral ñu né album bi disque bi day gën waye nak faaw ñu def mbalax pur et dur album bobu nak mbalax ñu a def sur le plan national mo wara gën le 15 décembre pour ma jox ko fan si seen cadeau fin d'année donc côté bobu aussi rassurez-vous mon frère gëj dégg déggante bi aussi bo nekkee ci waar di liggéey ca pareegoo ñun ñu nit ku ñuul dañoo baaxoo di nëbbatu balaa ngay jox dara kon ni nga ko waxee seddal ba mu sedd jox askan wi ñu war a naan ci anam bu neex bu sell lëlul dëxëñu toogal ci sa ruqus mën a kan liggéey ba pare génne nag jox ko askan wi